actu actu yaa mango jëlal xel di xelu bañ ciy xelu ba mu lay dikkee xëtante waaye boo jëlee Dakar net muy information bu gën a faar ñu jox la ko dippee ko top actu actu yaa ma ngo asalaamaaleykum asalaamaaleykum cher internet bu Dakar Net dal leen jàmm saa su ne dañuy am mbégte ak kontaante waxtu bi jotee ñu jàkkaarloo ak yéen faram-fàcceel na li gën a fës ci seen émission bu bees bi nga xamante ni damay ne yéen ñi ko beesal sax mooy ñiy dooree ñëw bu ko dabu muy top actu actualité yi gën a faar gën a fës ci semaine bi lañ leen di jël faram-fàcceel leen ko muy doon mbégte ak kontaante may ànd ak sama yaay maman ci loo ne. maa ngi nii rek moo fils. yaa ngi am jàmm. waaw maa si jàmm bu baax maman doro yaa ngi may bugg a waa gis nga. lii nii dafa tendance xam nga rek yaa ma gën a xam. xam nga xam nga nag lan la may fàttali. Mhm. mooy jamono yooyu ñu naan xur mbége. xur mbége xur mbége dawa bu <laughs> baax. yàgg nga de yaa ngi fàttaliku yàgg nii. jamono yooyu maman. beneen affaire la li ngay ko fa defoon rek wala gis nga de démb la indiwaat xam nga démb boucle d'oreille yi dañ ko doon takk mhm. léegi nag dañ ko indiwaat bee salaat ko rek mu fashion nga fashion ànd ak ñoom waa gis nga si samedi bi nii rek mhm. jàkkaarloog internet yi mhm. ma siy jaare di leen nuyu di leen wax ni dal leen jàmm ci seen émission bi di Top Actu bi nga xamante ni moo leen di digtal xibaar yi wér te wóor semaine bi yëpp xibaar yoo leen ci soxla tey lay am fii nii ci biir émission Top Actu Top Actu googu tey dama ne ana lan moo ci gën a fës waa li a fës nga xamante ni ni jagleel nañ ko ñii ngi militants yi ñu arrêté woon lors des manifestations mm-hmm. muy Assane Diouf Guy Marius ak Clédor Faye noonu la demee ñoom ñett ñooñu mujj nañ leen a foofu nga xamante ni fan lañ leen dencoon mooy sa Cap Manuel li nga xamante ni nag moom la mbir ma amee woon bokk na ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr coow la bari woon loolu ñu daal di leen jël làkk leen jatt ba ci jamono ji nga xamante ni sax lañ leen toppee bokk na ci organisation d'un mm. mouvement insurrectionnel waaye tamit provocation à la commission de crime waaye tamit délit ak association de malfaiteurs lii moo bokkoon li tax tey ji ñu jël leen làkk jant bi waaye tamit ci fàttali rek ñoom ñaar ñoom ñett ñi ngi leen libéré ci mercredi 24 mars bi jamono ji ku ci nekk mu ngi biir këram ana noo ko jàngatee. Euh, jàngal bi ma ci am rek mooy muy wane ni apaisement bi nga xamante ne ni woote woon nañ ko lii tey moo koy firnde mhm. mais doyul parce que ñi nga xamante ne ni ñii rek nekku ñoon ay détenu ci biir prison bi mhm. am na ñeneen seen gannaaw léegi ñooñu tamit loolu ñoom laay ñaan à ce que ñu libéré leen mhm. ñoom tam ñu mën a dellu si ay famille kon kon defe naa su ma déggee wax ji mooy que du Guy Marius Sagna du du Clédor Sène waaye tamit du Assane Diouf Kassé am na ñeneen ñi nga xamante ni jamono ji ñoom it ña fa des kon li ngay rek mooy ñu daal leen di ñoom ñëpp ñu daal leen di féexal ñoom lu mu gën a gaaw daayu ñu dellu ci seen ay kër ak seen i njaboot apaisement bi gën a mën a mhm. nekk leneen li gën a fës tamit ci xibaar yi bokk na ci ki nga xamante ni moo nekkoon directrice euh, bu président Cap Manuel moom dàq nañ ko. dàq googu ci la ñuy wax ndax ki tax tey ji ñu dàq ko bokk na ci génn gi mu génn mu di Guy Marius Sagna moom Guy Marius Sagna ba ñu ko yóbbee foofu ca Cap Manuel prison ba nga xamante ni fa la nekkoon condition ya taxoon tey ji mu daal di amal li nga xamante ni mooy grève de la faim am condition yooyu yëpp dafa gis ni dara baaxu ci lekk ga masala ci mm-hmm. nu ñu ko mën a waxee baaxul. anam li nga xamante ni it mooy ci wàllu condition bi ñu nekkee. lépp daf ko déplorer laa tamit leneen li nga xamante ni gis na ko ba tey mooy ci seen i marchandises yi njëg ba dafa seer li nga xamante ni wax na ko moo nit ba ci seen téléphones yi sax nañu koy utiliser lu metti la ci seen côté donc loolu daal ba mu génnee loolu la fësal ba tax ni jamono ji ki nga xamante ni moo di directrice bi di wuyoo ci turu Xadijatu Njuk Fay amaana ni sax séeréer la mujj nañu ko dàkk foofu nga xamante ni mooy sa prison bu Cap Manuel <laughs> mu anam yi ñuy nekkee ci prison yi c' est c' est vraiment alors alarmant man damay insister au gouvernement mm-hmm. à ce qu'ils prennent mm-hmm. à ce qu'ils fassent du moins mm-hmm. des mutations positive jëmale ci dox jëm ci wàllu seeni nekkin parce que li ñuy dund foofu tamit metti na nekk détenu nekk prisonnier warul tax ñu xañ la li nga xamante ni moom mooy sa àq ak sa yelleef donc kon su ma su ma la déggee day mel ni comme nekk sa kër sax. Mhm. war ngaa mën a xool lu baax looy lekk. effectivement que ni ñu ñu jël rek denc leen c'est pas parce que denc nañ leen que nu leen neex leen war a mhm. malmené foofu di leen di jàpp mhm. loolu daal nga gis. vraiment lu may déplorer la ndax li ñuy conditions yi ñuy dund foofu. vraiment c'est inhumaine. inhumaine c'est inhumaine. amaan na leneen humaine defe naa si diwaanu Pikine lan la. si diwaanu Pikine <laughs> foofu moom bagarre lañ fa nemmeeku keroog ci bi nga xamante ni militant APR yi APR yi doon ko amal. ci ab xeex la mujjee. dafa ma ne mooy waa Benno Bokk Yaakaar Pikine. ma ne la bu doon benn ma ne la ñaar naaroon nañ xaajoo nañ ba noppi xeex dóorante xeer ak li nga xamante ni moom mooy wàllum siège yañ fa nemmeeku li nga xamante ni nag loolu lañ doon def mooy après réunion pour ñu mhm. def seen mobilisation fexe ba defarwaat dafa mel ne mujj nañoo nax saay ndax coow la bari doon na mhm. te ñi nga xamante ni moom loolu lañ doon di di di wax mooy seen élus locaux yi leaders yi locaux yi li nga xamante ni mooy anam ba ñu nekkee ci seen posture yooyu gëmuñu ko loolu nag ci ñàkk déggoo googu waral ay kàddu jib sa xeex ya démarré waaye tamit xeeree di jóge fu nekk kaddu sées yaag kaddu yu ñaaw yëpp di jug waaye tamit ci fàttali rek ki nga xamante ni moom moo di jëwriñ bi di Abdou Karim Sall ma nga fa woon na nag maire bi nga xamante ni mooy wuyoo ci Abdoulaye Timbo ci Pikine ak soxna si di Awa ñoom ñëpp ñu nga fa woon ca jamono joo xamante ni tojante bopp yi xaañante xeer yi ñoom ñëpp ñu nga fa woon dafa mel ne jamono ji daal ñi ko def moom mooy waa président Macky Sall mu mel nii Davida loolu du negul du ma neguleet mhm. du ma neguleet surtout ñoom ñi nga xamante ne ñu ñoo faree au pouvoir mhm. chaque fois bu ñu amee seen genre rencontre yi mhm. fi muy mujjee mooy tojante bopp xasante xuloo mu doon loo xamante ni vraiment war nañ ko mën a dépasser ci période bu nga xamante ni ñeneen dañuy wote apaisement doon na loo xamante ni lu ñaaw la lu may yow sax dafa man ne da doon àtte xeex ba fa sa jaaroo fu ñu jaar dem loolu ba tey day firndeel nii ka rek comme lu ñu wax Sénégal bu doon benn bopp la ñu ci bari tey ji à travers ci li ñuy def nii mhm. tax na xel teey mhm. te bu doon ñeneen a ko def sax wala Sénégal lambda bi sax ñu wax mais ñi bokkoo ak président Macky Sall mi nga xamante moom moo jiite réew mi mhm. ña nekk ca moom ajoo ci ñoom di koy teel tànk ñoom ñoo doon laale laalo gi metti ana mhm. leneen loo xamante euh, li nga xamante ne ni tam moom moo gën a fës ci xibaar yi bokk na ci benn commerçant bu nga xamante ni jàpp nañ ko ak 3 kilogrammes de chanvre indien fële ca Linguère Linguère moom ma ne kuy arrière dafa ma ne loolu la moom dealer bi nee naa kii tuddul kii daal moo di la moo di wat mooy turam dëgg-dëgg di ab leader maam dealer la boo xamante ni sax kii dealer la ndax nañu ko jàppee xëy na leader la ca la muy def moo tax bi nga xamante ni mbir ma am na police daal di dem ak gendarmerie ba jàppalu ko fañ ko xamante ne fa lañ ko jàppee ak film bi mu demee mooy fa muy joxee ay marchandises am fa la ñu ko fekk moom moo di wat daal koy jàpp mu xawoon na nag metti loolu ci ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla moo nekkoon gendarme yi li nga xamante ni moom la ñu ko jàppee drogue boobu te zone ba nga xamante ni foofu la ko doon jël di def distribution bi foofu la ñu ko fekk waaye jël ko batam batamee ko ba yóbbu ko këram fekkaat fa yi nga xamante ni moo tollu ci 3 kilos ci maanaam chanvre indien loolu bokk na ci jamono ji ñuy wax ak yow ñu ngi ko denc foofu ca diwaanu Louga. mu doon loo xamante ni nii di danañ ko faral di nemmeeku souvent mm-hmm. ay ay kilo kilogramme yambaay ñuy jàpp ci ay nit. Mm-hmm. mais man li may laajte mooy euh, yambaay boobu kan moo ko fiy dugal nan lañuy def ba mu ñëw fii nii. Mm-hmm. et puis damay appeler tamit euh, au gouvernement mm-hmm. à que ñu jël ay décisions mm-hmm. yu sévères jëmale ci lu mel nii mm-hmm. parce que soo xoolee ñi ko fiy jaay du ñu jeex te ay xale yoo xamante dañu inconscient ñoom ñoo koy jël di ko utiliser finalement fu ñuy mujjee dof sànku wala ñu dem ba insécurité bi di gën a law fii ci suñu réew vraiment lu ñu war a stoppé la daf may fàttali suma ma kaane box bu saaneex daan wax jamono ji dafa ma ne ci mim réew muy Sénégal bu doon bu doon ndox la ma ne naan nañu ko. Mhm. mais li ma ci gën di jaaxal mooy ñi ciy faral di jàppee. Mhm. dañuy am benn profil xam nga boo nee commerçant. Mhm. ba pare bëgg ni moom xëy na ko lii mun nga jàpp ni sax yàgg na koy def. boo fekkee ni du commerçant bi yaa ngi koy jàpp benn professeur bu ñu ko waxul professeur ñu ngi wax benn policier bu ñu ko waxul policier ñu ngi wax benn gendarme. lu mu ci mënti doon defe naa ñi koy def ñëpp xëy na am na fi ñu la ñu jot a dressé xaalis. ngir jàllale seen marchandises yooyu yooyu si du sama ki du sama du sama du sama xalaat dama dama ko kii rek ñuy laaj yi ñoo xam te dañ ma ko dénk pour ma laajaale leen ko kon tamit yoon la mhm. ñu amaat beneen beneen xar kanam ci wàllu contrôle bi nga xamante ni déjà mooy a yi mel ni di dugg mhm. bu ñu duggee fii ba génn foofu ma laajal am na leen mu gën a fës leneen li gën a fës tamit bokk na ci procureur Ndao mhm. li mu xamle muy que ni Macky Sall dafa war a respecter ñaari mandat daal di ñuy abal ko ko wax wax procureur Ndaw la mu ko wax dañu ko jël daal di koy yëkkati mu nekk ay écriture yu mag a mag mu ne je conseille yi Macky respecter maanaam li nga xamante ni mooy ces deux mandats ba pare daal di dem abal ko ki ko wax nag moom ñëpp xamoon nañ ko ci CREI yi moom moo yoroon dossier boobu moom ma di procureur Aliou Ndaw li mu wax mooy président Macky Sall amul droit amaat troisième mandat rawatina nag ci moment boo xamante ni dëkk baa ngi tàkk. Mm-hmm. dëkk baa ngi tàng kilifa dina yi. kilifa aada yi ñu ci bari doon waxtaan ak moom que ni moom ci boppam moo war a fay daay gi moom ci boppam moo war a fay wax ji su ko defee bu boobaa mooy mu respecté mandat gi te jeexal ko te dem ci jàmm waaye mu yemu ca moom procureur Alioune Ndao daal di ñëw doxañ baaraam ki nga xam te mooy Antoine Félix Diome moom mi daal di koy xamal ne ko yow ministre de l'intérieur li ma la mën a xamal muy doon samay conseil mooy na nga fexe ba xam ne président Macky Sall mii mm. lépp lu mu jël yëkkati ko muy ay kaddu li mu lay waxloo pour nga def ko bàyyil xel ni lu ko fi dese bariwul te moo la gën a xam nii amul droit wu ñetteelu mandat kon nag bu la jéemee mettre en mal ak population bi man dama lay teel a di kàddu nag Ali Ndaw mu dellu waxaat ko ni ko président Macky Sall mii c'est un vrai politicien lu mu def lu ne mun na cee génn yooyu day kàddu yoo xamante ni nangoon nañu ko ci suñu naataangooy des yi ana leneen lu gën a fës leneen lu gën a fës tamit bokk na ci Balla gay 2 mhm. génn bi mu génn démentir que ni dañ leen lors des manifestations dañ leen a jëloon ñoom recruter leen mhm. ñuy daan askan wi ak di leen def ay xeeti ñaawteef mhm. ci ñaawteef yooyu dafa mel ni sax mooy jamono yi nga xamante ni son ko wool woon nañu ko ba jot jotoon ko jël sax mettre en garde à loolu taxoon na ki nga xamante ni kat mooy ministre de la justice ñu gën ko xam ci Malick sàll li mu wax yëkkati woon ko ci beneen sax Euh, suñu yeneen mbokk naataangoo yi nekk ci bitim réew wax fa wax ju rëy mooy nervi yi ñu doon gis mbëree la ndax ku xam yi xam ne am na période boo xamante ni bëri amul te bu bëri amul nga bëgg xaalis soo bëggee xaalis bu ñu la joxee benn cachet lu mu ndaw ndaw ndaw da ngay dem jaayante ak loolu loolu ne woon kàddu yoo xamante ni sax nakari woon na yenn ci ay mbër mu jaraloon kii di Gris Bordeaux sax porté woon plainte waaye la ca gën a doy waar mooy moom mii di ministre Malick Sall yamu ca ndax xamal na ni kat ña bokkoon ci association boobu di lutteurs yi am na sax ab audience bi nga xamante ni bëggoon nañu ko pour mu yegg ci président de la république ngir mu recevoir leen ci ñooñu ñu mën cee tudd kii di Modou Lo mhm. Eumeu Sène Balla ak Gris Bordeaux li ni mel nag moo tax kii di Balla Gaye daal di naqarlu loolu ba noppi daal di ne amul foo nga xamante ni ñoom manko nañ bay xalaat ni sax ñu ngi ñaan audience kii di président Macky Sall ndax bëgguñu ko nammuñu sax ab audience nammuñu sax jàkkaarloo mu di ay kàddu yu Balla Gaye Euh, mu mel ni jëf ji ñu leen di tuumaal su fekkee ne ñoom ñoo ko def mhm. doon na loo xamante ni lu ñuy ñaawlu la mhm. lu ñuy ñaawlu la mhm. même xaalis sax jaru ko walla leneen ndaxte nekk ñëw ci biir terrain bi ñëw ci population bi di leen def ay ñaawteef ak di leen violenter loolu defe naa ñoom bu fekkee ni li leen di tuumaal daal bu dee ñoom ñoo ko def dekk la lu may ñaawlu man personnellement waaw li ngay ñaawlu man li may ñaawlu damay tiitaange ndax ku ci mel ni tey Balla man de def naa bu daje woon ak man lu ma laaj ma jox ko mhm. kon ku ma ne Balla Gaye ak Modou Lo nga bëgg ca teg Gris su fekkee ni lii kàddu yu ministre bi daal di ministre de la justice Macky mhm. li mu wax nekk na ñun lu ñuy ñaawloo la waaye tamit lu ñuy tiital la. Mhm. su fekkee yi aussi lañ ko wax lépp. moom ni mu ko démentir noonu la demee. nañu jàpp ku ci mel ni ministre de la justice ak grade bu mu am war nay jomm. di wax lu dul loolu. war nay jomm di mettre en mal mbër ak population bi defe naa ni bu boobaa ak seen i waaw effectivement maanaam apaisement bi ñu bëggoon du am mhm. mais mhm. dañu jur leneen li nga xamante ni sax mooy gën a garaaw li fi jotoon a am mhm. ana leneen li gën a fës leneen li gën a fës aussi bokk na ci euh, xale yu jigéen yi nga xamante ni doon dem fréquenté boîte de nuit parce que soo xoolee un an moo ngi nii ñu tëjoon ak confinement bi léegi nag ab bi ñu déconfiné xale yu jigéen daal dinañ jëlaat yoon woowu bu doon picc yi ñu jugal seen kaaf mën nañu jamono ji firil nañ leen kaaf yi ba ñu jël seeni i laaf yi daal di koy firi dox ci mbedd ndakaaru ku ci nekk ak fa nga xamante ni mën nga fa jaar ba toj sa bopp gi nax fa ngay jaar moo xam coquette bi nga amoon cheveux naturel bi nga fas yéene ko génn diw yaram bi ba mu xees takk say takkaay jël sa cheveux naturel teg ko ci wala nga jël sax sa perruque teg ko ci lu mu ci mën di doon boo ko afee nga dagg ko dafa mel ni jamono ji ci ñoom ci loolu la ñu toll soxna yooyu jamono ji ñu ngi biir ndakaaru ñenn ñi ku ci nekk ci baat ba la gën a jege sax wala fa nga yaakaar ni boo fa nekkee ak Modou wala Moussa wala sax abdu di nga am li nga bëgg mm-hmm. loolu lépp li leen ko yóbbee woon ba ñu tëjal leen ci kaaf ga bokk na ci Covid 19 bi mm-hmm. yi nga xamante ni nguur gi jëloon na ko jaglal leen ko ñoom waaye tamit wax leen ni que Mm-hmm. bu ñu génn fenn ndax couvre-feu bi. Mm-hmm. bi ñu dindee couvre-feu bi ñoom ñooñu tey defar nañ seen yaram ba bu baax. Mm-hmm. commencé dugg ci boîte yi commencé dugg ci kër yi commencé def yooyu ba mën a siñ seen mariñaan yi defe naa loolu moo nekkoon di gën a fës. waaw mu mel ni confinement bi tey ouf de soulagement la pour ci ñoom. parce que ñoom seen liggéey d'habitude guddi la. guddi gi la ñuy génn dem ci boîte yi guddi gi la ñuy génn dem doxi seen ay soxla. donc loolu bu ñu leen ko xañoon tey. day xaw a métti mhm. léegi nag dellu siwaat nañ nekkaat ku nekk doxiwaat say soxla rek comme mhm. on a la l'accoutumé waa noonu la demee kon nag noonu la man ma sant ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi ñu doon bàyyi xel rawatina waa Rési ndax damay naan lu baax lu nekk ñooma boo leen toogee ba gis ñu lu ñu wax mu jub ñooma ndax ñooy wax ak ñun fii ñu leen di dégg ak di ñuy defaral fa ñu war a jaar ñëpp ñu ngi leen ciy béggee di béggee nag suñu coach maanee ñaan ko maane ba pula jéeri ana looy tàggoo xanaa di gërëm internet yi ñuy topp dañu seetaan saa su ne ak dañu safoo di leen ñaanal week-end jàmm di leen jox tamit dig daje ba samedi incha allah et d'ici là portez-vous bien. mu portez bien man tamit man na la bien bien <laughs> noonu la koy kii di waxee mbégte la woon ak contenté fii la nag boobu ma leen jox dig daje ci beneen top actu. dal di xelu bañ ciy xelu ba mu lay dikkee xëtante waaye boo jëlee Dakar net muy information bu gën a faar ñu jox la ko dippee ko mango jëlal xel di xelu bañ ciy xelu ba mu lay dikkee xëtante waaye boo jëlee Dakar net muy information bu gën a faar ñu jox la ko dippee ko top actu actu yaa mango jëlal xel di xelu bañ ciy xelu ba mu lay dikkee xëtante waaye boo jëlee Dakar net muy information bu gën a faar ñu jox la ko dippee ko top actu actu yaa mango jëlal xel di xelu bañ ciy xelu ba mu lay dikkee xëtante waaye boo jëlee Dakar net muy information bu gën a faar ñu jox la ko dippee ko top actu actu yaa mango jëlal xel di xelu bañ ciy